asalaamaaleykum wa rahmatullah wa yéen ñi nga xamante ni yéen topp saa su nekk fi nga xamante ni mooy Tawfekh Production boo la gisee jamono ji ne image yi mu xam ne ñoo ngi fi nga xamante ni moom mooy Touba ci dëkk bu sell bi ñeel wàllu màggal gi édition 2023 Euh, ci loolu nag euh, ñi ngi fi nga xamante ni bu mooy kër Serigne Mourtada ibne Serigne Saliou euh, jëm ci li nga xamante ni mooy bëccëgu màggal gi ci ñeel li nga xamante ni moom mooy màggalu Touba gi nga xamante ni moom la Serigne Touba digle koy màggal saa su nekk. kon ngeen topp ñu rek ñu war leen lépp loo xamante ni am na fi ci bëccëgu màggal gi fi nga xamante ni moom mooy kër Serigne Mourtada ibnu Serigne Saliou ñeel màggal gi bu édition 2023. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها Euh. comme ni ñu koy gisee ci image yi ba ñu xëyee ci li nga xamante ni moom mooy bëccëgu màggal gi ñu ubbeekoo ak li nga xamante ni moom mooy njàngum alxuraan ak li nga xamante ni moom mooy xasida yi lépp jëm ci li nga xamante ni moom mooy màggal bisu 18 safar fi nga xamante ni moom mooy kër Serigne Mourtada ibnu Serigne Saliou Mbacké unzila ilayk koy gisee ci image yi li nga xamante ni moom la sëriñ bi digle ci bëccëgu màggal gi mooy njàngum alxuraan ak li nga xamante ni mooy xasida yi ngeen gis ne mbokk taalibe euh, génn nañ toog ci li nga xamante ni mooy bâche bi di jëfee ndigal loolu nga xamante ni moom mooy ñeel wàllu njàngum alxuraan gi ak li nga xamante ni moom mooy xasida yi euh, bëccëg gi mbokk taalibe yu bëri euh, génn nañ ñëw ci li nga xamante ni mooy bâche bi jëfee ndigal loolu ngeen koy gis li nga xamante ni ci image yi saa su nekk ngeen gis mbokk taalibe yi di def li nga xamante ni moom mooy durusu xasida yi waaye tamit ñeneen ñi nekk ci li nga xamante ni mooy wàccee kaamir yi lépp ñeel ci li nga xam xamante ni mooy màggal bisu 18 safar bii euh, fii nga xamante ni moom mooy kër euh, Serigne Mourtada ibnu Serigne Saliou Mbacké nii ngay gisee si image nii nag jamono ji ñi nga xamante ni ñoom ñooy taalibe yi ñëwoon nañ di ziar si ki nga xamante ni mooy sëriñ bi eh, ci bëccëgu li nga xamante ni mooy màggal gi ngeen gis ne eh, saa su nekk eh, taalibe yi ñu ngi ñëw di ziar si ki nga xamante ni mooy seen sëriñ di sëriñ Murtada ibnu sëriñ Saliou Mbacké mu mel ni nag fu si nekk taalibe jóge na fa ñëw di fësal li nga xamante ni moom mooy seen cofeel ci nga xamante ni moom mooy seen sëriñ di sëriñ Murtada ibnu sëriñ Saliou Mbacké ni koy gis ci image nii sëriñ bi daal dina génn ci li nga xamante ni mooy bëccëgu màggal gi di saafoonteeg ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay taalibeem ndax loolu day bokk ci li nga xamante ni day gën a yokk cofeel ci li nga xamante ni moom moo euh, jëm ci diggante sëriñ ak taalibeem ngeen gis noonu ci image yi bi euh, nekk ci li nga xamante ni moom mooy euh, ci ëtt kër gi di saafonte ak ñi nga xamante ni ñooy taalibe yi ñi ñëw di ziar si jóge fu nekk ci àdduna si jóge si dëkk yëpp ñëw ci ki nga xamante ni mooy seen sëriñ ci bëccëgu li nga xamante ni mooy màggal gi ngeen koy gis noonu ci image yi ku ci nekk rek yaa ngi jéem a xool népp nooy def di saafonte ak ki nga xamante ni mooy sëriñ Moutada ibnu sëriñ Saliou Mbacke muy jëmmal li nga xamante ni moom mooy kilifaam nga baayam ba di ki nga xamante ni moom mooy euh, Serigne Saliou Mbacke. من الحق جاء ba léegi ñoo ngi ci fi nga xamante ni mooy euh, kër Serigne Mourtada ibnu Serigne Saliou ni ñu koy defee rek comme ni nga ko waxee màggal ak bernde ngeen gis noonu ci image yi tant bu am solo boo xamante ni def nañ ko jëmal li nga xamante ni moom mooy berneel li nga xamante ni moom mooy gan yi ñëw foofu ngeen gis li nga xamante ni moom mooy taabal yi ni mu taaroo euh, jëm ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu bernde yi euh, ci li nga xamante ni moom mooy bëccëgu màggal gi lii yëpp jëm ci li nga xamante ni moom mooy ndekki yi ngir taalibe yi mën a ñëw daal di xéwlu ci li nga xamante ni moom mooy bëccëgu màggal gi ngeen a gis façon lépp loo xamante ni moom mooy daal xéwal gis nañ ko fa lu ko dalee ci li nga xamante ni moom mooy laax ak fruit ak yëpp loo xamante ni jëm ci wàllu daal wàllu xéwal ni ngi koy gis noonu ci li nga xamante ni mooy image yi euh, jëm li nga xamante ni moom mooy bëccëgu màggal gi ngir ñi nga xamante ni ñoom ñooy taalibe yi ak fu ñu mënta jógee mën a ñëw xéwlu ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu bernde yi ci bëccëgu màggal gi ngeen koy gis noonu ci image yi euh, soxna yi nekk ci li nga xamante ni moom mooy euh, wàllu euh, séddale yi ñu def ko li nga xamante ni moom mooy dressing table ak li nga xamante ni moom mooy self service ku ci nekk fa nga jëm nga nga def li nga xamante ni moom mooy euh, fa la neex nga daal mën a dem jël la la neex mën a xewlu ci li nga xamante ni moom lañ fa teg ngir li nga xamante ni moom mooy bëccëgu màggal gi euh, fi nga xamante ni moom mooy kër sëriñ bi euh, muy sëriñ Murtada ibnu sëriñ Saliou Mbacké jëm ci li nga xamante ni moom mooy màggal gi ci bëccëg Seydi maa ngi jógee fii ci Dakar di taalibe sëñ Mourtada Sall waaw màggal gi de sëñ bi moom dund gi lépp mbégte la rek ndax màggal Tuubaa moom ku di am murit xam li ci sëriñ Sali waxoon daan ni ñaar ñu bokk ndey ak baay kii di ko def kii di ko def saa bu ñu xëyee ku nekk gis sa morom ci ki ko daan def lu mu ko rawee te ñun yàlla dañoo dimbali Serigne Sali dañoo teel a xamal luy màggal Tuubaa bañ ko xamee it bañ demee ba gisatuñ ko ñu ñëw jokk ko ci sëñ Mourtada di ko dund ak moom. xéwal yi nag bari na ndax sëñ Mountakha moom ku ko xam ku ne xam ne teraanga ak teraluk taalibe ak teral jaamu yàlla yi moom ci yàlla ci loxoom la ko teg ndax heure boo ko nuyoo wala nga ñëw seet si ko mu defal la teraanga yoo xam da nga naan sëñ bi lii mu ma defal yayoo ma ko te pourtant yayoo nga ko jëmmi waajuram wala ciy xool ndax noonu la ko daan doxee ñun nag cant gi ñu ngi koy cant bu baax ñu ngi ànd ak su suñuy mbokk taalibe yoo xam ay taalibe sëñ Saliou lañ muy alaaji Njoogu Mbay lépp taalibe sëñ bi bu bu mag boo xam ne bi mu nuyoo léegi sëñ bi sëñ bi feddal na ci kóllëre ci moom leeral ko liggéeyam ba jot na ci ak kuñ naan Mouta Diop ñi ay taalibey sëñ bi yoo xam Dakar lañ bëgg bu baax a baax a baax ndax heure bi mënoo koo dund fenn fu dul ci sëñ Moutala ndax safar gi boo ko bëggee dund ci mbégte dangay ñëw gis sëñ Moutala ndax sa xol di sedd billaahi mbégte mi foo ko xalaat rek weesu nañ foofu ci mbég ci sant sant Serigne Moutala Saliou. Aïda Sarr. fii dañuy ñëw di présenté ndekki gi am na na ngalax am na na laaxu triche mhm. ku ñëw da ngay choisir lu la neex rek ku ñëw da ngay choisir la neex rek yaa yaay choisir soo ñëwee après ñu defal la après nga dem service entre service libre la am na ay fruits am na ay cake am na ay euh, dibi yaa tout ndekki lu am ndekki di am rek mi ngi fii ami aaw waa ñi ngi ci ñi ngi ci démb lañ tàmbali ci 17 safar bi commencé cocktail ak reer tey ñu ñëw ci 18 safar bi tàmbali ak ndékki yi ci lañ nekk nii waa ñi ngi ci viennoiserie yi lañ nekk nii salé bi ak salé bi waa jàppandi na jàppandi na parce que nekkul lu compliqué boo ñëwee rek da nga am nga large choix ci euh, menu yi ñu def léegi yéenay ku dugg si rek da ngay xool li nga xam ne que moom nga gën a yittewoo nga ñëw ñu defaral la ko comme ni ngeen ko bëggee. waaw waa sant nañ moom sant nañ sëriñ bi bu baax a baax di ñaan yàlla yàggal ko fi ñu yàgg koo ànd ak moom di ko màggalee comme ni mu ko bëggee ci barke sëriñ Saliou. wajaba amdul xaaliqi rahmaani ala ibaadi madal asmaani nekk ci secteur bi di si Jooja Gueye maa ngi sale mm-hmm. waa ñi ngi ñëw di barkeelu ñi ngi doog a tàmbali mais ñi ngi ñëw par nank naa waa am na ay michu yi am na ay pigeon am na yëpp mm-hmm. am na ay mini pizza ay croque monsieur am na ay risol am na ay crêpe am na yëpp nii lañ koy def dañ koy def ndekki añ ak reer ku ñëw xeewlu nga indi sa plateau nga wax li nga bëgg ñu defaral la ba pare nga dem tee ba pare nga dem jël boisson am na dessert yoraa dina am lépp waaw ak cant rek cant rek kontaan lool nekk nekk taalibeem di ko liggéeyee foofu moom buñ fa duggee rek day lii sant rek quoi euh, deux ans deux ans mais di sant rek di di di di di di xanaa di di lii rek li lu tax ñu yeex ko xam waa loolu sax loolu sax di sant rek nekk ay taalibeem foofu moom ak cant képp fa kay li ma dikke saar la waaw waaw ñu ngi ci ñu ngi ci wàllum ndekki bi mooy show bi maanaam am nañ fi euh, ay saveur yu bari am nañ café Mouli café tuuba am nañ euh, euh, meew am nañ chocolat am nañ fi meew am nañ euh, ndox mu tàng aussi pour ku bëgg def euh, café noir infusion ak euh, beaucoup de saveur ci ay yeneen infusion quoi voilà nii lañ koy defee saa ne at mu ne mais chaque année dañuy jéem a yokk ay variété di xool lu mbooloo mi di bëgg di ko soxla ñu koy yokk chaque at mu ne ndax liggéey bi daal mooy dab bànneexu gan yi loolu ñu fi sëñ bi taajee. daanaka su ma de kii lépp lu nit war a mën a jëfandikoo loo xam ne sucré salé yëpp mi ngi fi lépp mi ngi fi comme ni ngeen ko gisee comportement par kii lañ ko def par étape nu ku nekk doomu aadama bu nekk li nga bëgg fa ngay dem jubal directement boo ñëwee ñun ay jumtukaay lañ rek da ñu wax ne li nga bëgg ñu defal ko su la neexee nga taxaw ñu defaral bu neexee nga dem toog wax li nga bëgg ñu fekk la fa andil la ko waaw. sëñ bi da xanaa waaw at yi de danaa deesu su ko compter ndax daanaka bañ fi tàmbalee léegi xaw na yàgg lool. waaw xaw na yàgg ba dañuy fàtte at yi sax waaw xanaa di ko sant rek parce que euh, liggéeyal Serigne tubaa yomb na waaye bu àndeek ndigal daa gën a jàppandi maanaam mun nga liggéeyal sëñ bi si sa xarañteef bopp ak ci sa mm, euh, teeyaayu xel mais buñ la ci joxee ndigal maanaam day gën a da xam ne lii dañ ma ko sant maanaam loolu day am ci barke day yomb lool di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér Mbàkke ñu yàgg ko ànd ak moom ba naal bi mu euh, am fas yéene ci liggéey ci yoonu sëñ Touba bi suñu borom may ko ko mu fekkee ko fan wu gudd ak wér gu suti ay ay maamam ki ñëpp fan yeggali fi lu liggéey bi mu fi tàmbali. Euh, ndongo li yaa liggéey la. waaw macha allah tàmbali nañ ci bismillahi rahmaani rahim te fas yéene ka jeexal ci alhamdulilah di ko sante waat sëñ Tuuba saa su nekk rek muy mel ne yaa ngi ci côté bi ñu naan show chaque année ñun ñoo ko yor man ak sama jëwriñ bi sëñ Madi Sarr ñoo ko yor saa su nekk. waaw di ko def nu mu gën a muccee ayib rek maam ngir liggéey bi ñoŋ lool waaw ngir jëmi sëriñ bi. waaw waaw fii moom self service la nit ku nekk yaa ñëw tànn lu la neex lépp am na fi nag am na fi kafe kafe Touba am na fi ndox mu tàng boo xam yaay seet lu la neex nga boole ko ak moom steak am na fi am na ay infusion yi fi nekk yoo xam ni mi ngi fi meew am na fi café it maanaam xeetu kafe boo soxla rek mi ngi fi dinañ am was dinañ am was buy lu ne dafee am lépp loo xalaat ci lu tàng rek dañ koy waajal ngir mbokk taalibe yi ngir santalee ko sañ Tuubaa ci bisam bi. Mhm. ah sëñ bi de <laughs> yàlla na fi yàgg lool ñun ñun ñu yàgg fi lool di ko liggéeyal bisimilah. salaamaaleykum mbokk taalibe yi maa ngi lay di leen siyaar nuyu mbokk taalibe yëpp euh, jëwriñ Malick Sarr la. waaw waaw mooy ñu wax wàllum collation bi nga xam ne comme ni ñu koy defee at mu jot rek ci màggal gi. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla yonent bi suñ Tuubaa Cheikh bu baax a baax di ñaanal suñu sang bi Cheikh Mouhamadou Moukhtar moom Serigne Saliou Mbacke suñu borom kattanal ko wéral ko mu yàgg fi loolu te ànd ak bi mu namal liggéeyal maamam ju tedd ji jarale ko ci waajuram ak ci jëwriñam Serigne Cheikh Saliou mu suñu borom amee ko defal ko ci anam yu mu ko bëggee ñun nag euh, bërëb bii fii mooy lañuy euh, dalalee di fi berndee ganu sëriñ bi ay gani boppam waaw jox ñu ko ci tawféexam ñu ci berne ganu sëñ bi ñun nag ñoo géré partie bi ñaa collation bi waaw maanaam lépp luy sedd rek moo xam ne moom nañuy ñuy berne ganu sëriñ bi waaw boo ko gisee nii à ma ñu ngi am fii benn jus jus citron ananas loo xam ne comme ko dañoo nekk ci euh, suba subay magal gi euh, jus citron ananas la da ciy baax lool pour mbokk taal yoo gën a mën a yeewu am nañ fii tamit jus di taax euh, fii jus buy la am nañ bisaab rouge ak orange melon yi nga xam ne parce que tamit à chaque moment rek dañuy génne loo xam ne mooy méngoog heure bi waaye yii boo ko xeetu jus yi boo ko gisee xam ne moom moo méngoog suba teel nga xam ne nit ki da koy jël nga war a mën a sawar mën a dëgmal màggal gi bu baax a baax ñu ngi leen di santaat di leen gërëm bu baax waaw nii lay continuer ba màggal gi incha allah بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت ñun ñoo nekk fii si wàllum taaw ji pour servir euh, euh, si organisation pour servir ñi nga xam ne mooy gan yi fi ñëw nekk euh, gan Serigne Touba pour gën a màggal bisbi bi comme ni ko bi digle woon rek si bernde jàng alxuraan ak jàng xasida si loolu ñu ne ñu nekkoon si wàllu bernde yi mooy nga xamante ne lii lépp luy tàng ak luy sedd pour jox ko mbokku taalibe yi mbokku jullit yi. waaw comme à rek dañoo ñëwaat rek nekkoon ci liñ nekkoon daaw ak daaw jéej ci ndigalu sëriñ bi mooy yéeneem fas yéene jëfe yéeneem mooy képp koo xam ne rek da ñëw pour màggal si lépp luy naan ci lu sedd ak lu tàng ñu fexe ba di ko jëmmal ci kër gi ba nga xam ne nit ñi kenn du ko du ko du ko mar loolu daal mooy yéene yi waaye gis nañ ni tamit xale yi dañ ci am seen wàll moo indi yeesal yi ñu def ay bonbon ak ay tàngal ay gerte pour que muy accompagner li nga xam ne moom mooy naan bi muy bu sedd waaw mooy gâteau yi ngay gis nii ñu def ko ndax xale yi toujours dañ leen di privilégié ndax ñun kat waa kër Serigne Saliou lañ te gisoon nañ Serigne Saliou ni mu fonkee xale kon lépp lu ñuy def rek dañ ciy dugalaale euh, yéene dañ ci yéenewaale xale yi. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar man la soxna Amina Ndiaye ñu gën maa euh, ngi ci wàllu accueil. liggéey bi yomb na ci boo ko kiwee yombul tamit ci ñenn ñi mais liggéey sëñ Touba moom defe naa ni amul dara lu ci jafe parce que boo xoolee ci sëñ baa mi nga xamante ne moo daj lii ba tey jii ñun ñu am lii defe naa ne dara warta jafe ci ñun suñu borom moom yombal na lépp macha allah di delluwaat sant rek ci sëñ bi di ñaan euh, sunu sëriñ muy sëñ Mourtala Saliou Mbacke yàlla na fi yàgg lool te wér euh, sëñ Mountakha it yàlla na fi yàgg lool te sant nañu bu baax ginnaaw ba mu ñu gindee ba ñu mën a euh, liggéey lii ni tey ñu ngi koy sant bu wér a wér. soxna Khoudia ah ñoo ngi fi daal booba tey ñi commencé ko 17 safar tey mu nekk 18 safar mu jour bis bisu sant sëriñ bi xewal berne lañu woote ak jàmm salaam waaw màggal gi neex na trop ñoo ngi ëtt sëriñ kalaamu sëriñ Saaliw waaw ñoo ngi koy ñaanal tamit gudd fan ak wér waaw yàlla bàyyi ko suñu kanam bismillah tur bi naka la Ndeye Marème Ndour ban dëkk nga jógee. Géejawaay. Géejawaay nga ñëwoon tey ziar si fii ci bërëbu sëñ Mourtada Saliou donc ba nga ñëwee tey loo loo yëg tey ba nga ñëwee tey gis mbooloo mi gis benn yi. xanaa bëgg rek wax dëgg yàlla bëgg nañ bu baax kontaan di santaat bu baax nag di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadou Mourtada suñu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak yooyu barke sëñ Saliou. ñaata at ren ngay ñëw di di ziar ci bërëb bi nga xam ne mooy bërëbu sëñ Mourtada Saliou. waaw waaw ñun daanaka ñun maanaam ci ci ci ci ci keppaaram gi lañ gim lañ gimmee fi lañ xàmmee wax dëgg yàlla ñun danoo danoo danoo judd rek judd ci keppaar gi wax dëgg yàlla. kon nag at bu ne yéen a gis yokkute ci bërëb. ah at bu ne yéen a waaw waaw gis yokkute wax dëgg yàlla te di ñaan mu jëm kanam incha allah. waaw fii moom mbégte la ndax boo fi ñëwee rek ak ambiance bi nii da ngay fii sawar a nekk waaw fii yéen a ngi dund mbégte bu baax a bu baax kay moom bu baax moom yëg nañ suñu bopp macha allah ñaata at ngay ñëw fii wala yaa ngi fi soog a ñëw non maa ngi fi yow depuis deux ans trois ans gis nga fi wuute ak yéen yéen dal yi waaw waaw gis naa ko fi moom ndax fii moom macha allah boo ñëwee dañ lay yaatal bokk si ñëpp tur bi nag soxna As foo jógee Dakar donc dangaa ñëwoon tey euh, ziar si loo fi njëkk seetlu ba ba nga ñëwee fi ah fii moom macha allah moom lépp taw féex gis naa fi taw féex bu baax fii moom yaatal ñëpp yaatu nañ ñëpp nekk nañ benn te yaatal nañ ñëpp macha allah. ndax fii yéen a ngi dund li xamante ne moom mooy ambiance màggal ah ñu ngi dund ambiance bu baax moom macha allah gis nañ si taw féex bu baax. ci wàllu xéwal yi nag ba nga ñëwee yow loo loo fi njëkk a seetlu. ah xéwlu nañ bu baax moom lekk yi moom macha allah kenn mënu koo jeexal. لشهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا noonu ba léegi ñu nekk ci fi nga xamante ni moom mooy euh, kër euh, Serigne bi muy Serigne Mourtada ibnu Serigne saaliw ba ñu jógee ci li nga xamante ni moom mooy euh, bâche bi fa nga xamante ni fa la benn day nekk ñu dem fi nga xamante ni fa la médecin yi nekk ñëwoon ngir daal di ñoom tamit jëmmal li nga xamante ni moom mooy bisu màggal gi ci ay consultation gratuite waaye tamit di maye ay garab ci ñi nga xamante ni ñooy mbokk taalibe yi doon ñëw doon saytu seen yaram ñenn ñi ku ci nekk daal fa nga xamante ni war nga fa mën dem ji ñu mën a xool sa yaram dem nañ fa defal leen consultation ñi nga xamante ni war nañ leen jox ay garab tamit dem nañ ci médecin yi ñu jox leen ay garab daal defal li nga xamante ni daal moom moo ñeel wàllu jëm ci wàllu santé bi lépp jëm ci li nga xamante ni moom mooy jëmmal bésu du si safar bi fii nga xamante ni moom mooy kër Serigne Mourtada Ibnu Serigne Saliou mu mel ni nag mbir mi yemul lekk ci li nga xamante ni moom mooy wàllu bernde waaye tamit ci li nga xamante ni moom mooy jëm wàllu saytu yaram tamit fës na fa lool ci ay médecins yoo xamante ni jóge nañ fu nekk ci réew mi ñëw ñoom tamit fësal seen yéene bi nga xamante xamante ni euh, Serigne Mourtada ibnu Serigne Saliou daan ko bëgg a jëmmal li nga xamante ne bi si màggal gi euh, waaye lépp lépp jëm ci li nga xamante ne rek moom mooy euh, màggal gi euh, ci wàll bu nekk ak fu nekk ci li nga xamante ni moom moo ñeel di safar bi. Moustapha Sarr. li nga xamante mooy bërëb bi moom mooy wàllu médecin yi donc est mu ñëw état wu lieu bi yan secteur ñoo fi nekk ak ñeneen ñeneen ñoo fi nekk. waaw xam nga lii moom ci kàttan suñu borom ay at yu bëre depuis at yu bëri dañ koy def. consultation gratuite ànd ak ceeg euh, Touba assistance médicale nit ñi dañu ñëw ñu càmbar leen suñu xamee seen jàngoro suñu fi amee ay garab yoo xam ne mun na faj seen jàngoro jox leen ko suñ ko fi amul dañ leen di bindal ñu dem pharmacie dem jëndi ko fa wante lii du première édition bi la édition mun nañ wax ñu ci cinquième à sixième édition nga xam chaque année ci màggal ci kàttan suñu borom dañ ci ànd ak waa tam. constat boo xamante ne dañuy consulter may la garab bu amul yenn garab yi ñu ñu ñu jox la këyit bu mun tax nga dem hôpital. waaw am na ay doomu jàngaro yoo xam ne docteur yi di consulter suñ ko euh, càmbaree ci malade bi dañ koy orienté comme léegi-léegi gis nañ koo xam ne dafa am problème bëñ danañ ko jox loo xam ne dana seddal métit bi wante dañ koy orienté. dañ ko wax dama seeti kat chirurgien dentiste kooku moo gën a xarañ ci mbiru bëñ donc bépp pathologie boo xam ne ñoom consulté nañ ko fi jégg na dayoo dañu orienté malade bi waaw. ñaata at ren ngeen ngeen di taxawal li nga xam ne mooy liggéey bi fii ci kër Serigne Mourtada Sarr. waa comme ni ko waxee bii presque mooy sixième édition. sixième édition tàmbale nañ ay at euh, tam door ñu ci fekk mais macha allah ñoom tamit ñu ngi ci béy seen waar ñoom ñu ngi ci góorgóorlu bu baax a baax duñu jàppale bu baax a baax donc ñun mooy les laboratoires Agenta Pharma laboratoire Agenta farma moom tam lu ko tax a jóg mooy jàppale la population jàppale les praticiens les médecins les infirmiers les paramédicaux jàppale leen pour lan pour ñoom ñu gën a mun jàppale mun gën a mun faj maladie en quoi faisant parce que laboratoire bi daf leen di accompagner dans le cadre de la formation daf leen di accompagner ci ay jumtukaay yoo xam ne pour faj malade bi la donc c'est dans ce cadre la Agenta décidé ñëw ak ak tam ñëw fii Touba kër Serigne Mourtala pour euh, def une consultation gratuite. ay kàddu témoignage a jëm ci ki nga xamante ne moom mooy Serigne bi Serigne Mourtala ay kàddu yu témoignage rek bi rek yan kàddu lay nekk. waaw euh, sëñ Mourtala moom euh, am naa yaakaar wax ci moom sax euh, man daf may xaw a diis parce que luy tubaab doo impressionné man daf ma impressionné man avec mon âge fréquenté naa sëriñ yu bëri mais sëñ Mourtala daf ma yéem en quelque sorte daf ma yéem. suñu wax sëriñ mën na sëriñ suñu wax référence mën na référence man lii may wax dama ko dund ak moom fi daal sant rek xanaa ñu ñaan di ko def ay at yu bëri fekkee ko tal ko sek ak seeg suñ suñu jarbaat yi nga xam te ay jàmbaar lañ boo ba léegi depuis daaw am na ñoo xam ne ñuy continuer ñu accompagner ñoom bu ñëwee ba léegi sax amuñ sax jotu ñoom xewlu ñoom ñu ngi ci liggéey bi. waaw onze billahi mina sheytaani rajim bisimilah rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah ñoo ngi gannaaw bañ sante yàlla julli ci muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam santaat sëriñ Touba di ñaanal sëriñ Murtada mu sëriñ Saliou mu yàgg fi loo tànd ngeen ñu fii nag ci màggalu ren gii màggal 2023 fii ci grande cuisine sëriñ Murtada mu sëriñ ma feggoog samay jëwrin samay mbokki taalibe jàmbaar yi nga xamante ne tey jii ndigal li Serigne Touba joxe ni nan berneel gan ñi ñi féetewoo berneel gan yooyee ñoom laa feggool niil kii mooy Mamadou Diop di jëwriñu géejowaay jiite waañ wi kii mooy sëñ Ousmane moom lépp lu ñuy lewatal ci wàllu gàtt ci loxoom la tege ànd kook njaga kii nag mooy jëwriñ Assane Fall Mbana Assane Fall Mbana moo nekk nii bépp mbana bu nekk ci waañ wi ci loxoom la tege moo ànd ko Jóob mii jëmm ji mooy bas seen moom lépp lu ñuy raxas ndab yi ñuy raxas moom mooy jëwrin ji di jëwriñ lagambal man mii nag maay seen topp jëwrin ànd ak ñoom ci liggéey bi waaw commission cuisine lañ wax ñi ngi fàttali ni soxna Ndey Jaxate moo yor jigéen ñi mooy commission jigéen ñi soxna Ndeye Jaxate mooy commission yor jigéen ñi fii ci biir cuisine dafa nekk fee ci séddale ba ndax kat añ yi pare na yóbbu nañ ma nay tam moom moo ko war a séddale moo tax teewul ci jotaay bii tey organisation bi nag noonu la ko sëriñ bi bëggee sëriñ bi daf ñoo teg ci aw xàll woo xamante ne ñun ñëpp bu ñu àndee nekk ci waañ wi joxante loxo doon benn li sëriñ tubaab bëgg diglu ko te mooy berndeel gan yi ñu mën ko matale fii ci wàññi ndax xam ngeen ni màggel gi moom Serigne tubaab berndel la ci ndax ak cant la cant na ku koy wax ku ne xam nga ne da ngay rindi rindi togg togg joxe te bañ am xejj bañ am seen te di ko joxe ci xol bu laab te loolee lan nekkee nag fukki fan a juróom-benn fukki fan a juróom-ñaar fukki fan a juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñeent ba ñaar fukki fan ci weeru safar fii la ñuy nekk ci cuisine bi ci waañ wi fas yéene jëfe ndigalu Serigne Touba bi ci ëttub Serigne li ci gën a am solo nag mooy ñun ñëpp ci waañu la fanaan fii la fanaan fukki fan ak juróom juróom la ñuy ñëw ci waañ wi buñ fi génnee mooy ñaar fukki fan ak benn sunu basang la ñuy lal fanaan ci waañ koo soxla teg ko loxo ngir liggéey bi mën a gaaw waaw bala may bala may sant feex Production ndax ñoom danoo yàgg ak ñoom dinaa sant bu baax bala maa sant Tawfekh Production damay sant bu baax ñii ma àndal ndax danoo toog ci kanam sëriñ bi jël fa ay engagement ni ko añ yi dinañ ko teel a taal dina teela noppi tey jii may wax ak yow màggal 2023 13h35 la añi noppi 13h35 lan woo Pape Samba Ndiaye mi nga xamante ni mooy président commission d'organisation kër sëñ Mourala mu sëñ Saliou ni ko wool si daat mi war a jël mbana yi mu ñëw jël mbanaam ndax mbana yi noppi noonu loolu nag taw feex la menu bi moom xanaa euh, euh, def nañ paella def nañ tufe def nañ ceebu jën def nañ ceebu ndawal def nañ mbaxal maanaam te sëñ bi noonu la bëggee ndax dafa ñoo wax ñu benn benn bu ci nekk nangeen fexe mu am ci ndax kenn ku ci nekk mun ngaa ñëw boo bëggul payalaa bëggoo ceebu jën bëggoo bëggoo mbaxal nga bëgg ceebu ndawal baa boo bëggul ceebu ndawal nga bëgg payalaa looloo tax sëñ bi wax nañu nan def diversité boobu pour que véritablement les pèlerins puissent euh, gis ci seen bopp daal waaw waaw Naxju TV moom sunu ju la ndax ñun ñëw moom Naxju Tawfekh Production it sunu Tawfekh Production la ndax ñun ñoo ko moom sant leen gërëm leen ndax booba tey ñi ngi ànd ak ñoom nag te tàyyiwuñu sonnuñu foo leen fekk ñi ngi xool nan la mën a vulgariser li nga xamante ne moo am ci biir kër sëriñ bi à travers le monde loolu nag véritablement ñoo ngi leen di sant di sant seen njiit sant ñi nga xamante ne ñoo ci nekk ndax min nañ seen kanam ñun ak ñoom ñoo nekk suñuy mbokki taalibe lañu kon nag bu ñuy ñëwee ci ëttu kër sëriñ bi di vulgariser li nga xamante ne am ci kër sëriñ bi duñ mën lu dul sant leen duñ mën lu dul gërëm leen di leen ñaanal nag ni mu doonee taw Tawfekh Production ren yàlla na nu dund ba benn média bu nekk ci àdduna bi du ko ëpp doole te loolu si yàlla mën na ko yàlla nañu ko defal ngir jëm Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf kon ba léegi yéen nga xamante ne yéen ñu topp fi nga xamante ni mooy Tawfekh ngi fi nga xamante ni moom mooy bërëb bi nga xamante ni fii la lépp lu collation am jëm ci wàllu was ataaya ak ne ñoom ñoo yu ni mel fii ci kër Serigne Moutada Saliou fa la ñuy wan leen li nga xamante ne moom moo fa am ginnaaw nga xamante ne jóge nañ ci yéen bërëb yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci nga xamante ni moom mooy kër Serigne Moutada jëm ci wàllu waañ bi waaye ak li nga xamante ni moom mooy jëm ci wàllu collation lépp loo xamante ni wàllu benn la ci màggal gi yooyu yëpp lañ leen di wan euh, ñu nekk fi nga xamante ne nag moom moo ñeel wàllu fi ñuy defaree wàllu ataaya yeeg wàllu was yeeg ay yeen yu ni mel ñu ngi mën a xam lépp loo xamante ni euh, dinañ ko joxe euh, fii ci kër sëñ Mourtada Saliou jëm ci li nga xamante ni mooy wàllu màggal gi bis ba yayoo way ba géex mooy màggalug Tuubaa bismil ilaahi ma jungir teeru bis bi ma saaf yayoo way ba mooy màggalug Tuuba bismil ilaahi na ngeen jug teeru bis bi nu ba yayoo way ba mooy màggalug Tuuba mooy biis bi tax tey ku ney def bis te deefu la caw bis boo fi dégg dafay waajal màggaluk Tuuba ndegam solos bis bi daf laa reer ci téere yi tey teewlu ma kon tey nga xam luy màggaluk Tuuba mooy bis bi tax tey nga tal yor la yar sa sikin dinaan sawar nga ak di diingat gor ya jëm Tuuba lu jiitu bis bi ku daa bañ naa di xëy na ko rey ku feex ci diineem na fonkaat màggalu Tuuba kon ba léegi dañu gisee si image yi jógee si nga xamante ne mooy waañ bi ñu dellu si waat ci li nga xamante ni moom mooy euh, ziar bi euh, ñi nga xamante ñoo euh, xamante ni mooy sëriñ bi muy ay taalibeem waaye tamit ñëpp ñoo ki nga xamante ni moom mooy sëriñ bi ci bëccëgu màggal gi comme ni ko gisee si image yi mu daal di jege lool ñi nga xamante ni moom mooy mbokk taalibe yi di saafonte ak ñoom di waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moom moo jëm ci bëccëgu màggal gi comme ko gisoon ci mi ci image yi noonu ñaanal ñi xamante ni ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy mbokk jullit yi ñëwoon ah, ci bëccëgu màggal gi ñëwoon ngir ah, ziar ko ah, waaye tamit fësal seen kóllëre fësal seen cofeel ci ki nga xamante ni moom mooy sëriñ bi comme ñu gisoon si image yi noonu muy defal ñaan ñi nga xamante ni ñoom ñooy mbokk taalibe yi jëm ci soxna yi waaye tamit jëm ci nattam ya ngir bañ mu dellu ndam ci biir Tuuba moom rek a dem dellu si moslaawul tasalitu nii tey waay di wax lam daa wax bam jugul Tuuba Euh, mu leen daal ku ci nekk daal Serigne daal wane na universalité bi nga xamante ni moom moo nekk ci moom euh, jëm ci li nga xamante ni moom mooy euh, ci yoonu l'islam bi waaye tamit ci li nga xamante ni mooy yoonu murid bi ndax fu nekk la mbokk taalibe fu nekk la jullit jógee fu nekk la nit ñëw ngir wane seen cofeel ki nga xamante ni moom mooy Serigne bi ci bëccëgu màggal gi jëm ci li nga xamante ni moom mooy wàllu du safar bi kon ngeen koy rek di xool li nga xamante ni mooy image yi mbokk taalibe yi ak saafonte bi nga xamante ni ñu ngi koy saafonte ak sëriñ bi lu ñeel wàllu bëccëgu ci këram gi. nag ma ci santale waat bur kon lu ma am si tukki beeg bokk ko cey borom tuuba ku am ginaar wala xar ba nag ba bum naw te bum xeeb na dundal màggalug Tuuba ku am ginaar wala xar ba ba jàpp gileem bum naw bum xeeb na dundal màggalug Tuuba bilaayi asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp nag di kontaan bu baax man ko sëñ Moutala di tey laa ko ma sa ñëw depuis may nekk Kaolack may nekk xale ñun Moustapha Boy moo newoon suñu jëwriñ mag Moustapha Boy nag eh, dafa dëddu àdduna di koy ñaanal yàlla tey ci bés bi yàlla na ko yàlla xare fii daal moom kër sëñ Moutala mu sëñ Saliou ñun mbégteeg am. ñun mbégte lañ fi am man ak samay njaboot ak ñëpp boobu ba léegi ñun ci moom la ñu jébbalu wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wër yàlla yàggal taxawaayam ci kanamu njaboot bi yëpp macha allah ñu ngi ñu ngi dund ñu ngi koy dund ci fépp keñ ci saay ci baatim ci suba lañ jóge Dakar ak samay njaboot ak sama goro wax dëgg yàlla mu jóge Allemagne moom bu màggal jotee daal day bugg a ñëw Sénégal waaw chaque màggal daal day wax jëkk ji yóbbu ma Sénégal damay dem màggal ah sëñ bi moom ku nekk ñun ñëpp ku ci nekk xam nga ne booy jàkkaarloog moom rek day am euh, mbégte booy booy booy booy yëg ci moom man sëñ bi ma may njëkk a moom maa ngi koy jàkkaarloog kër kër kër papaam sëñ Saliou ci boppam mu nekk tout tànk waaw boobu ba léegi maa ngi ñëw màggal macha allah yàlla yàlla defal ñëpp jàmm waaw kontaan lool nag waaw di gërëm nag. njaboot bi yëpp xale yi ndaw ndawaan yi nga gis yi ñu góor ñëpp samay doom lañ ndax ñoo samay doom ñooy ànd depuis Kaolack ñoo bokk nekk Dakar ñoom ñëpp daal maa ngi rafetlu seen taxawaay ci kër sëñ bi bu baax a baax. Mon nom c'est Fallou. Je viens de Marseille. Mmh. Alors c'est ma première fois au Magal. Je trouve que euh, de Touba, c'est quelque chose d'exceptionnel. Qui plus est, sur le, le, le, je dirais site de, de, Mortala, Saliou Mbaké, c'est une personne qui sait recevoir et, et je suis fier d'être talibé ici. C'est l'énergie que dégage la ville, l'énergie, la, la, puissance de l'énergie de la ville. Voilà, une énergie hors du commun. des choses entre lui et moi. Exactement. Je ressens beaucoup de choses avec euh, Mortala et, je dirais euh, y compris la ville de Touba. Et le Magal m'a donné encore autre chose, une autre dimension. Inch'Allah, je reviendrai. Merci à toi. Merci à toi. waaw dañuy sant yàlla bu baax comme ni ko sëñ Touba waxee ci bis bi sant Serigne Saliou Mbacké sant sëriñ Moutala Saliou mi nga xamante ne mooy sunu sëriñ mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg biñ ñëwaatee ci bis bi fekkewaat ko at yu baree baree bare ñu ko ànd ko ak moom di ko màggal li njëkk wax rek mooy di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla ko sunu kanam mu gën a gudd fan te wér ànd ko ak moom di ko màggal at yu baree baree bare biñ ñëwee tamit fekk nañu macha allah daayira bi kër gi fu ci nekk rek gën a yaatu gën a muxtaare gën a taw feexe loolu liñ defoon daaw ren romb nañ ko li ñu defoon daaw jéeg romb nañ ko daaw li ñu def ren romb nañ ko kon loolu sant yàlla la ci mbokku taalibe yëpp kon ñu ngi ñaanal sëñ bi si am xamadul mutala bu sëñ Saliou mu yàgg fi lool te ñu di ko màggal at yu bëree bëree bëree bëri en tout cas ñun bëgg nañu kontaan nañu sunu euh, sunu sunu njëbal yeesal nañ ko te gën nañoo laxasaay ngir liggéey sëñ Touba ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk eh, njaboot Serigne Saliou wala ñu yeroo ci eh, keppaar Serigne Saliou ñëpp daanaka dañoo dañuy dundal li nga xamante ni mooy li Serigne Touba wax mooy màggal gi reen di bernde ñu gis ne ñoom ñëpp dañuy dundal li nga xamante ni màggal gi ci bernde yéen ñi ñu nekk fi xeetu bernde yéen fi gis ndax yomb na ngeen koy gis ci ci yéen yeneen waaw dëgg la wax dëgg si yàlla kontaan nañ ci loolu xeetu bernde yi moom macha allah ah kër yi bëri na fi waaye fii li fi am moom amul fu bëree bëree bëree bëree bëri wax dëgg si yàlla léegi ñu am gan gu fi ñëw ànd wala suñu dëkkandoo boo xamante ni xëy na sax kër gi du wàccuwaayam waaye bu fi duggee dootul génn man mii am naa ci expérience ñu baree baree bari ay xarit lañu woon ay dëkkandoo lañu woon ñëw fii ànd ci ak man wala fekk si ma fi wala di ma sees ci màggal gi mais buñ ñëwee génnaatuñu dañoo mujj toog ndax lan ngir sëñ bi d'abord mais aussi ngir kër gi ngir benn yi fi nekk ngir ñaan gi fi nekk kon sant yàlla bu wér a wér a wér bëgg nañu kontaan nañu li fi nekk moom macha allah mënuñu ko wax dañ ciy rek di ci bëgg bu baax a baax a baax comme ni nga gisee ci nag ren nag sëriñ am solo la andi ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu bernde ndax ab bâche bu ngand bu mag mag la daal di def ci li xamante ni mooy kër gi ngir gën yombal li nga xamante ni moo jëm ci wàllu ah, taalibe yi eh, fa ñuy bernde woo nga gis noonu ci image ci dressing yi nga xamante ni def nañ ko ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ah, ngir yombal ñi nga xamante ni ñooy mbokk taalibe yi fu ñuy mën ñëw di ah, servir seen bopp jëm ci li nga xamante ni moom mooy wàllu xéewal yi ci màggal gi kon mu ngi noonu ñu ko gis ci image yi nga xam ne sëriñ bi dafa jox cër bu am solo li nga xamante ni mooy wàllu bernde ndax dañoo ni màggal nde bernde loolu waral nag ngi gis ci image yi ñu jox ko pàcc bu am solo boo xamante ni gis ngeen li nga xamante ni loolu la ñu taaralee li nga xamante ni mooy bërëb bi ñu nga xamante ni fa nit ñi waree ñëw war a xewlu ngay gis noonu ci image yi euh, lu jëm ci wàllu xeetu jus bu nekk ngeen koy gis noonu euh, lépp jëm ci li nga xamante ni moom mooy euh, mbokk taalibe yi mën a ñëw mën a xewlu ku ci nekk la nga soxla ci wàllu jus ci xamante ni moo jëm ci wàllu dégustation nga mën koo mën a am gis noonu ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu wàllu jus yeeg wàllu li nga xamante ni moo jëm ci wàllu sucrerie yeeg lépp loo xamante ni salé la façon lépp loo xamante daal moo jëm ci wàllu bernde ñu ngi koy gis noonu euh, ci fi nga xamante ni moom moo nekk euh, bërëb bi euh, li nga xamante lañ teg ngir mbokk taalibe yi mën a ñëw mun faa mën a xewloo jëm ci li nga xamante ni moom mooy bëccëgu màggal gi ñu ngi wax jërëjëfe Serigne Touba jaara maam Cheikh Ibrahima fa Lamp barkeb Serigne Saliou ñu ngi nuyu mbokk taalibe yëpp fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew na ñi nga xam ne nii ñoom ñooy mbokki internet yu di leen jaajëfal ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii yéen a koy amal nu euh, ngi santaat yàlla bu baax bi mu ñu mayee nu fekkewaat màggal gi nga xam ne nii sunu àdduna ak sunu àllaaxira yëpp ci leen ko wekk ñu ngi fii ci jannatul maxwa ci kër Serigne Mouhamadul Mourtada moom Serigne Saliou euh, fas yéene ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ne nii euh, moom la nekk rawatina bésu màggal gi nii. waaw li nga xam ne moo jëm ci wàllu liggéey bi nekk ci kër Serigne bi dafa am commission d'organisation boo xam ne nii moom moo ko yore. commission d'organisation boobu nag dafa am ay sous commission yoo xam ne ñoo ko composé euh, mu nekk euh, liggéey bu am solo boo xam ne tey li nga xam ne moom lañ fi teewal ci lépp loo xam ne nii mën nañ ko fee nemmiku liggéey bu am solo moo nekk ci gannaaw euh, li nga xam ne nag moom mooy sababu waxtaan wi di nax Nahdiou restauration di espace bi nga xam ne dañ ko aménagé ku nekk xam na ni diirub gan yi tàmbalee di ñëw ci kër gi ñu ngi leen di defal ay xéwal di leen bernde waaye démb ci guddi la ñu aménagé espace bi pour que tey bu ñu xëyee bésu màggal gi ñu mën fee amale li nga xam ne mooy ndékki yi amale fi añ bi amale fi reer yi euh, gis nga ko barab bi ni mu taaroo macha allah ku nekk xam na ni euh, màggal gi euh, borom da cee santaane ñu jàng ci alxuraan jàng ci ay xasida def ci ay bernde te bernde yooyu maanaam dañ ko war a dëppalee jamono defe ko noo xam ne nii macha allah mbokk taalibe yi nga xam ne dañuy daje ci barab bi fas yéene barkeelu ci xéewal yi ñu defee ko ci anam boo xam ne nii day ànd ak norme d'hygiène ànd ak taar boo xam ne wax dëggam fa yàlla euh, dinañ ci dab seenu mbégte dinañ ci dab seenu bànneex ndax lépp euh, sëriñ bi noonu la ko bëggee. boo gisee ni ñu ko organiser nii euh, lépp dafa lalu ci dab bànneexu ki nga xam ne nii moom mooy mbokk taale bi mi nga xam ne dafa ñëw ngir xéewlu ndax boo xoolee li fi dajee ci wàllu xeetu xéewal bari na am na mënu salé am na sucré. ndax bi ñu xëyee lañ ko tàmbali euh, nit ki su ñëwee nag euh, dañ koy bàyyi ak libre choix am bu demee euh, fu mu ci taxaw rek am na ku fa nekk koo xam ne nii pare na ngir servir ko moom mooy xool li nga xam ne nii moom moo dëppoog bëgg-bëggam bu ko laajee dañ ko koy defal ni mu ko bëggee du ñàkk itam am na ñoo xam ne nii xëy na ñu ngi ci biir kër gi nekk ci yeneen ni yëngu-yëngu ba seenu jot mayu leen ngir ñu mën a ñëw teew ci barab bi dañoo préparé ay boîte yoo mi xeeti xéewal li nga xam ne nii moom moo daje fii nii ngir mën leen a fekk ci barab yi ñu nekk euh, jëbal ko ngir tamit ñu mën a gis seen bopp bu baax a baax ci li nga xam ne moom la yëngu waaw coordination bu am solo la ndax lii ñu ngi ko dooroon daaw mu nekkoon euh, suñu première édition euh, ren jii ñu daal di xool li nga xam ne nii moom lañ am ci ay at yi ñu consolider ko li nga xam ne nii amoon nañ ko ci ay jafe-jafe ñu xool naka lañ ko saafara moo tax ren jii macha allah. Euh, boo gisee liggéey bi daanaka amul benn jafe-jafe boo xam ne nii mbaa bariwul boog jafe-jafe boo xam ne nii nemmiku nañ ko ci ndax coordination boobu nga xam ne nii mbooleem ñi nga xam ne euh, tabbal nañ seen loxo ci biir liggéey boobu noonu euh, dëppoo nañ ci xalaat ko ne noonu lañ ko war a doxalee. waaw ñi ma àndal ci waxtaan wi nii ci sama càmmoñ di baay di sunu jëwrin baay Moustapha Diong moom bokk na ci jëwrin yi nga xam ne nii ñoom ñoo coordonné li nga xam ne nii mooy liggéey bi non seulement daf ko bokk ci ñi ko coordonné waaye. terewut itam saay su nekk rek mu ngi ànd ak ñun ci yëngu yi ndax euh, pas-pasam ndax ak nangoom ndax it bëgg ñoo gunge ci liggéey bi te bugg cee def gannaaw Euh, ki nga xam ni moom moo féete sama ndeyjoor di soxna Fatou Fall moom tamit bokk ci soxna yi nga xam ne nii ñoom ñoo euh, coordonné liggéey bi ndax boo xoolee dafa am aw jigéen moom bokk na ci soxna yi nga xam ne nii ñoom ñoo coordonné euh, liggéey bi nga xam ne nii moom la jigéen ñi war a def am ci taxawaay bu ama am solo boo xam ne nii wax dëggam fa yàlla jàpp naa ne lii bu fekkonte ne ñetti tànk la ñoom soxna yi ñoom ñoo yore ñaari ndax ñu ngi koy doxal macha allah waaw espace bi comme ni ma ko waxee rek Euh, li nga xam ne nii mooy ëpp ci mbooloo yi le 18 safar lañ fi daje moo tax espace bi dañ koy aménagé uniquement pour le 18 euh, safar euh, su ko defee ëllëg mbooloo yi day wàññeeku incha allah dañuy wéyal li nga xam ne nii mooy service yi di amal añ reer ak ndékki waaye li nga xam ne nii mooy mbooloo yi day wàññeeku ba liggéey bi day daal di gën a yomb waaye danoo incha allah bu ñu ko sunu borom mayee ban fekkee ko at yi di ñëw ci kanam ñu fexe ba di ko tàmbali comme ni ñuy màggale euh, du 16 au 20 safar nga xam ne nii dañuy aménager incha allah di bernde gan yi du am arrêt bu ñu yegsee ba keroog ñuy wàññikuwaat incha allah. waaw képp koo xam ne ni daal euh, yàlla dogal na nga tàbbisi ci biir kër gi yaakaar naa ni lépp lu jëm ci wàllu xéewal moom loo nam rek boo duggee ci barab bi di nga ko am lépp lu mu mën a doon xeetu ñam muy xeetu lu nuy togg lu jëm ci wàllu ndawal. ak lu mu mën a doon ak lu jëm ci wàllu fruits lépp loo xam dafa jëm ci wàllu euh, lu nuy lu nuy lu nuy defar ak farine ak lépp daal boo duggee ci barab bi yaakaar naa ni mun maa lim li nga xam ne moo fi daje yëpp ci ay xéewal waaye lépp loo xam ne nit euh, namm na ko ci xéewlu rek eh, bu duggee ci barab bi incha allah dana dana dana dëppoog na mu ko na mu ko bëggee. waaw sunu mbégte moom yaakaar naa euh, mënuñu koo wax ndax am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax jëmm ji di Cheikh Mouhamadul Mourtada Euh, daf noo daf noo dimbali ndimbal loo xam ne nii euh, lott nañ ci wax ko ndax lu nu man mm, ginnaaw yàlla moom la waaw daf noo daf noo féete ci kanam féete nu gannaaw waaw lépp loo xam ne nii rek euh, sumb nañ ko dana xool na mu gën a jekkee na mu gën a baaxee na mu gën ci ñun mu joxoñi ñu ngir ñu mën ko defee noonu dinu bàyyi tamit nuy xalaat waaw ndax itam ay doomu aadama lañ yoo xam ne nii dañoo tënku ci benn kuréel kon liggéey bi faaw tamit ñu ñu ci eh, dugal suñuy xalaat waaye lépp loo xam ne nii xalaat nañ ko ba tënk ko ba jëbal ko ko rek wax dëggam fa yàlla daf ñu ci dimbali ndimbal loo xam ne nii luñ ci defit eh, du ñu yëg coono yi day ànd ak lépp day ànd ak tawféex ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool mm, defal ko ak wér ba naal yi mu naal yëpp mu matale ko ànd koog mboolem taalibe yi wax dëggam fa yàlla euh, nu koy sant sant goo xam ne nii amut fu mu yem daal nu ngi koy ñaanal bu baax sama borom yàggal ko fi wéral ko ba lépp loo xam ne nii naal na ko rek mu matale ko ànd koog mboolem taalibe yi euh, Maawa Ndiaye la nekk euh, ki nga xam ne moo yor wàllu communication bu Nahju restauration bokk tam ci comité d'organisation bi nga xam ne nii mooy kër sëriñ bi kullul mahamidi liman yaasimuna مسليا على الذي يومنا كل المحامد لمن يعصمنا مسليا على الذي يومنا له جميع الخلق والأمر بلا تنازع ولا خلاف مسجلا له السماوات والأرضون وما بينهما سبحانه ما أعظم منه بجاه المصطفى المقرب أروم خير عمل فمرغبين ci ni moom mooy wàllu bernde yi waaye bii nag coté bu spécial boo xamante ni muy benn euh, bâche bu ñu def ca biir euh, ngir ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay ganu boppam muy autorité ak yenn kilifa yi nga xamante ni euh, dinañ ñëw di ziar ci sëriñ bi ngeen di gis noonu image yi ci li nga xamante ni moom mooy boobu spécial salle boo xamante ni wala benn bërëb boo xamante ni moom lañ fa teg ngir ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité yi ak ay ganu boppam fa nga xamante ni fa lañ leen di recevoir mën leen di berndeel ngi ñu mën dundu li nga xamante ni moom mooy màggal gi comme ni nga ko waxee waxee euh, bernde euh, ngeen koy euh, seetaan noonu daal ci image yi si fruits yi yeeg ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu façon xéewal bu nekk daal teg nañ ko fa ngir jëmmal li nga xamante ni moom mooy bërëb bi taaral ko ci li nga xamante ni moom mooy wàllu bernde yi nga xamante ni teg nañ ko foofu ci bâche boobu nga xamante ni mën nañ ko waaye sax bâche VIP bi nga xamante ni ay ganu boppam ak ay gan yi nga xamante ni ñoom ñoo jugee fu nekk wala jóge ci nga xamante ni moom mooy ci àdduna si ngir euh, mën a ñëw euh, xéewlu foofu nga xamante ni moom mooy ci kër sëriñ bi euh, ci li nga xamante ni mooy bëccëgu màggal gi waaye ci li nga xamante ni moom mooy yi ci li nga xamante ni moom mooy fii ci kër sëriñ bi ci bëccëgu màggal gi wa kullana inda xafifin wa safin waaw mooy ginnaaw bi ñu nuyoo mbokku taalibe yëpp di leen ziar bu baax ci bis bi nga xam ne bis bu sell la bis bu tedd bis bi nga xam ni mooy suñu gën gi bis bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom waaye nag euh, liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy laaj mu nekk liggéey boo xam ne liggéeyu Serigne Mourtala moom Serigne Saliou la ñu koy siyaar Mbàkke di ko ñaanal suñu borom guddal fanam wéral ko li nga xam ni mi ngi koy bëgg ci yoon bi di yoonu maamam bi di Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi ñaan suñu borom kattanal ko defal ko taw tawféex ba lim fi mu ci bëgg a àgg suñu borom àggale ko liggéey bi nag nga xam ni moom la ñu yore mooy wàllu bernde la ñun duñ ci leen liggéey bi lépp liggéeyu sëriñ bi la ni mu ko bëggee ñun noonee lañ koy defee ndax li ñuy wax rek sëriñ bi moom du bëgg lu mënta nekk lépp lu mu bëgg rek murid yi dinañ ko def donc noonu la liggéey bi demee répartition tâche yeeg yeeg ak yu ni mel lépp rek ay mbooloo lañ boo xam ni mbooloo mu nangu lañ te nit ki boo nangoo rek loo bëgg a def def ko moo tax moom daanaka répartition yeeg ak liggéey ba na muy doxee lépp du dara du ci jafe ndax mbooloo lañ moo xam ne ñoo ko séq di ko doxal tey wax dëgg yàlla ñu ngi ciy daje tawféexu sëriñ bi. li dalee ginaar ba ci gileem waaye ginaar ba ci gileem damay am na ci am na ci dal yëpp am na ci barab yëpp waaye léeg-léeg joxin wi. ak cadre yi day doon loo xam ne day def différence ñun aussi wax dëgg yàlla lépp loo xam ne mooy plan plan sénégalais donc lu ñuy def prévoir lu ñuy waajal la lépp loo xam ne it plan plat européen la dekk à base de poisson à base de viande ñu ngi koy def wala à base de volaille ñu ngi koy def donc ci anam yoo xam ne nag xëy na loolu suñuy ay yëfi bopp la anam yu mucc ayib waaw ba nga xam ni ñi nga xam ni ñooy gani sëriñ bi di taalibe sëriñ bi di wëllëri sëriñ bi képp ku fi ñëw moom lépp loo xam ni mooy loo bëgg ci wàllu bernde di nga ko fekk. waaw ñun de li ñuy faral di wax rek Sëriñ waa amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la ñun aussi liggéey bi ñu ngi ci fexe ba du am tànki gannaaw tànki kanam rek lay am ndax xam naa ne bu ñu xoolee suñu ay vidéo wala suñu ay image yu màggalu daaw wala gàmmu daaw ak xool suñu image yu ren dañuy xam ni liggéey bi am na ay jéego yu mag yoo xam ne mi ngi koy def ñun nag ay donga lañ di caataan ndigal di déglu ndigalu sëriñ bi kon ñun mënuñu lu dul moom mais di sëñ Murtada moom sëriñ Saaliw ñaanal ko suñu borom guddal fanam waaye gën koo wan ne suñu ay suñu sëriñ la moom la ñu yaakaar lim bëgg ñu ngi ci te ni mu ko bëggee noonee lañ koy defee ndax yàlla dafa wax ni bu ngeen bennoowul seen doole dana dem te bu ku leen jéemal dana leen manal ki nga xam ne moo ñu bëgg a defal waxtaan wi leeral ñu ko nag mooy sëriñ Bassirou fay nekk professeur di jàngalekat di yarkat yàlla subhaanahu wa taala digal ñu ne nañ bennoo ndax yàlla boo xoolee ci wowu doxalin lépp lum la digal ne la na ko def man ngee nekk day am waaye mu boole la ay xeetu natt yoo xam ne mën nañ laa gàllankoor ba loola doo ko mën a taxawee bu ko defee kon foofu yàlla fa lay xoolee nattu fa doomu aadama yi ñan ñoo gën a mën a topp ndigal ak ñan ñoo ñan ñoo toppul ndigal mu ñëw ci alxuraan yi tegtal yu bari boo xam ne day firi kenn ku ci nekk fu far rek foofa ñooy yor dëgg li ci ëpp ci moom yàlla deful ci xol yu bari ñu mën a gis dëgg ci seen bopp gis ko ci keneen ku dul ñoom kullu xesbin bi ma ladayhim farixuun loolu nag lu mu indi mooy ak wuute gu metti ak néew doole ak tam dugg ci mbir te duñ ko mën a sottal ci biir jullit ñi moo tax sunu borom daf ñoo tele ne nañu moytu xëccoo nañu moytu wuute ndax buñ ko defee sunu doole day néew duñ am kàttan luñ song duñ ko mën a daan mu waxaat ci alxuraan moom yàlla ne na takkoo yéen ñëpp ngeen jàpp ci buumuk yàlla gi te bu leen tàqalikoo benn yoon ndax ñi nga xam ne dama leen ko digaloon defuñu ko wuute ci seen biir tuuti ñu alku yàlla moo ci du def loxoom dimbali leen waaye tuuti ñu alku kon loolu li muy firi mooy sunu boroom dafa namm daa bëgg mboolem jullit ñi ñu nekk benn donte naanuwaay yi dafa wuute fu ñu mën a soqalikoo ñu xam ne ñoo bokk luñ liñ bokk lépp mënuñu ko seddoo te moo ëpp doole ci li ci li ñuy dunde ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tam feelu na ci alxuraan lu baree bari ci ay xadiis yoo xam ne day digle ak bennoo am na buñ ci mën a tudd mooy fi yonent bi waxe ne jullit ñi day dama leen di misaal ci ne niñ war a soppantee war koo yërëmantee war koo ñeewantee seen bopp ci seen biir day mel ni aw yaram woo xam ne wenn yaram rek la cër bu ci metti rek cër yi ci des yëpp daal di koy yëg yooyu ma si saatu ak lu mel ne jéggale muy al jéggale bu fekkee mi ngi am mes naa séentu ne bennoo mën naa am waaye bu kuy def buñ la tooñee rek doo baale faaw da ngay fayu foofa ak jàppante rek moo fi mën a am aku bañante beneen ba ci topp mooy lu mel ne ak tasaamu xam ne wàllu tolérance tolérance mooy nga xajoo sa mbokk meneen wala keneen koo xam ne bokk leen madhab bokku leen am ngir wala bokk leen xeet wala bokk leen tariqa ak ku mën doon rek wala bokku leen dëkk sax nga mën koo xajoo ndax rek sa mbokkum jullit la nga eh, def ko ne sa bopp mën a dund ak moom xam ne leen wuutale moom du la am solo ndax wóote moom mënta ñàkk yàlla moo bind noonu doomu aadama yi moo bind noonu nit ñi faaw ñuy wóote seen biir ndax ni mu ko wax rek wali daalika xalaqahum kon wóote bi mënta ñàkk asiru ma labraari وزن الإدان هناك سير حسير على الأمر kon nag mi ngi noonu comme ni ñu ko gisee ci image li leen andi woon fi nga xamante ni mooy kër Serigne Mourtada ibnu Serigne Saliou euh, ci màggalu édition euh, bi euh, ñu leen di jox di daje nag déwén ak jàmm ci li nga xamante ni moom mooy ñeel wàllu màggal gi fii ci kër Serigne Mourtada Saliou ànd kook ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Tawfekh Production ak équipe bi ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci liggéey bi ci màggalu édition 2023.